nuyu nañ leen bu baax jaajëfal leen yéen ñi safoo site internet bii di réew mi TV li a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy doo rek euh, condamnation bi nga xamante ne rek defoon nañ ko kii di Ousmane Sonko doon ko toppee nag par contumace jamono ji daal dinañ koy jël rag deram bom set wecc kii di Ousmane Sonko nag euh, dina bénéficié wu nag li nga ne rek moom mooy bokk ci élection présidentielle yi bu ko defee rek dinañu ko mën a bind ci liste électorale yi mbir mu nu mel nag euh, communiqué bi nga xamante ne rek agent judiciaire de l' état di yoro Moussa Diallo moom moo ko di rek rek fësal niki tey jii ginnaaw nag ci boobule communiqué euh, lam ca daal di xam ne daal mooy nguur gi ci jëme boppam rek pare na pour retirer lépp loo xamante ne rek moom moo tukkee woon ci ordonnance numéro 1 bu 4 14 décembre 2023 euh, bi nga xamante ne rek kii di président bu tribunal instance hors classe bu Ndakaaru moom moo ko defoon ñu fàttali leen nag condamnation Ousmane Sonko par contumace bi nag euh, jamono ji daal di nañ koy annulé ca coow la doxoon ca diggante mag ak li nga xamante rek moom lañ ko doon toppee ci diffamation ñeel nag diggante ak Mame Mbaye Niang ginnaaw rek bi ñu voté boobule loi ñu duppee loi amnistie mbir mu nu mel nag kii di casier judiciaire bu Ousmane euh, set wecc mu nekkoon percal sax mel na ne euh, fóot nañu ko ba mu set wecc ci communiqué bi nga xamante ne rek daal nañ koy adressé fi nga xamante ne moom mooy ca premier chambre administrative bu cour suprême bu Dakar kii di monsieur Yoro Moussa Diallo moom ci jëmmi boppam rek daal dinay wax ci turu état bu Sénégal que ne boobulee décision nag daal dinañ koy def mu nekk document boo xamante ne rek bu set wecc la ki ko signé di monsieur Diallo moom mi nga xamante ne rek daal dina ci yëkkati ay kàddu a kii di Ousmane ko doon toppee rek jamono ji nag daal dinañ koy dindi ba mu set wecc mbir mu nu mel nag ñu ngi ko daal di rek fësal niki tey jii jërë ngeen jëf ci lu bi bu leen fàttee abone bés cloche de notification ngir mën a am yeneen info